kaa da ngay judd dee ca jàngoroy Ebola alhamdulilah ubbil tribune yéene kaay kuréel gi njaboote daal wàllu wér-gu-yaram ci àdduna wërngal këpp gi di organisation mondiale de la santé waaw dekkal na yaakaar de ma ne la lay fekkoon Ebola ji ma nga kuréel googe di OMS waaw ñoom daal dajale nañu démb kon lu ci toll ak ñaari téeméer ci ay boromi xam-xam expert ca Genève la waaw ngir jéem a xool nag yoon wala boog ay jumtukaay yoo xam ne war nañ koo mën a jëfandikoo ngir jàngoroy Ebola joojee ma ne lu ci toll ak juróom-ñett laa wax nii ci ay garaba ngi am na ci ñaar yoo xam ni kon ngir fànq jàngoroy Ebola jooje te loolee danañu ko commencé tasaare nag fii ba njeextalu at yi ñu ne grand place ginnaaw nag maanaam kon ay mbóot yoo xam ne yu ragal lu la ay révélation département d'état de la santé bu états-unis ci boppam waaw ñoo ko xam le xam le nañu carrément ne jàngoroy Ebola jooje ma ngay avancé ne dangereusement mardi gali ci frontière u Sénégal laa ilaha illallah am na ci yeneen i xibaar yoo xam ne démb la jëp yu ragal lu sax doomu Guinée gi nga xam ne kon moo dugal jàngoroy Ebola jooje ci Sénégal waaw te ñu téye ci fan ndekete gone a gàtt toll nañu fukk ak juróom ñaar ñooñee teg nañ leen loxo ñu di càmbar ñaari yoon ci bis bi waaw Ahmed Khalifa Niass ci yéene kaay gi daal la mu xamle la nee na armée bi boppam kon lañ war a yóbbu nag maanaam kon ci frontière u Sénégal jox leen ndigal képp koo xam ne daal yaa ngi jéem a kon frontière yi a ngir wàll ko sénégalais wala képp koo xam ne kon yaa ngi ci réew fekk baax te bitim réew nañ la tiiree bal laa ilaha nañ la rey abattre la déet waay Niass Ahmed Khalifa Niass ne kay Libération yéen a kaay ne ministre de l'intérieur ci Abdoulaye Daouda Diallo waaw ak naataangoongu environnement ña nga woon ca kili koroni ku démb jéem a xooli na dogal yi nga xam kon jël nañ ko ca frontière googe ministre de l'intérieur ca parce que yëkkati na ay portable daal di koy séddale kon chef de village ya ngir képp koo xam ne daal yaa ngay jéem a fax frontière ci li jaarul yoon chef de village yi daal di woon ak kon kilifa yo Le Soleil yéen a ne xeexum jàngoroy Ebola jooje jamono joo xam ne nag maanaam kon ña ngay waxtaanee Ebola ji Karim Wade da nga ca kaso booba léegi ni lay la ilaha illallah direct info ne dogal boobee Cour suprême moo ko jël ah enquête yéene kaay ne waaw ma ne la bàyyub di liberté provisoire dàqal nañ ko moom Karim Wade de nangu luñ ko xam ne moom lañ ta jondoog moom di Pape Mamadou Pouy waaw gis nañu daal ay virement benn milliard ak ñetti téeméer ci ay millions Allahu akbar ngir jabaram waaja ja sama mosa sénégalais yi daal fi mu nekk bëgg nañu ne kon coowal yoon wii ci mbirum Karim Wade gi jeex parce que daa jël kon réew mi otage alal jeneenu alal feeñati na dee Sud Quotidien rapport scientifique la 2013 waaw ma ne la banque yeeg homme politique yeeg internet yeeg ONG yeeg ak ñeneen ak ñeneen ma ne ñii daal dañoo jël kon ab alal joo xam ne kon ju salte la waaw di ko setal marti taali le populaire ne dëgg la rapport scientifique daal sulli na ay mbóot ko ci internet escroquerie ma ne la jigéen ñay seef laa ilaaha illallaah cay dëkko Macky bi kër la xibaar bii du neex président de la république déedéet moo joxe ba ne Mahmoud Saleh day mi ngi sori Macky Sall de mi ngi sori Macky Sall de moom jot na ay xibaar yu jugee ca bee waaw ndekete mbir ma nekkul Mahmoud Saleh kese de déedéet la waa kër Macky Sall yoo am na ca ñoo xam ne kon ña ngay préparé na kon am fipu ci kaw Macky Sall ci boppam maa la ko wax ña ngi koy

mooy numéro 2 moom lañ dénkoon defaru parti bi formation beeg yooyu tàggatu gi te jamono joo xam ne Idrissa Seck daawul nekk ci réew mi moom Déthié Fall moo mais ma ne prix ràññee révélation management moom lañ ko jox waaw yéen i jambal jàngi di la quotidien seq waxtaan wu yaatoo yaat ak Barthélemy Dias ma la Barthélemy Dias ne Benno Bokk Yaakaar il fallait ñu def leen liñ leen def door leen ba ñuy bëgg a waaw maire sacré yamu ca parce que Barthélemy Euh, stade yéene kaay ne Sénégal Égypte waaw jéego bu njëkk ngir Maroc 2015 Mohamed Jammeh mi capitaine u gaynde yi waaw nee na Égypte amul dara lum fi am laa la soox ne gagné rek wala dara journaliste yi dee démb dañ leen a saaga insulté leen marti Italie laas ne baa doola marité itali wax day rafet waay laas ne noonu xam nga fii laas ñin du ñuy bëgg sax maanaam kon di jëfandikoo ay kàddu yu rëy waaye lenn la bu xewee kenn mënu koo wanaas déedéet la xew démb ca hôtel Savana gaye doy na waar journée émergence APR moo fa doon am waaw ma la journaliste yi laa lay wax ni xoolal bis fa yëpp fa la ñuy yendu kilifay APR yi daal bañ toogee ba 4 ca ngoon 16 heures daal di jël pause dem di añi a kaay gi xam nga ne lii bu dul ab mbaadoo la bu dul baadoo la waaw waay waay nuru na ko waay le populaire ne gaa yu Macky Sall yi daal waaw ay moor laam lañ xam nga los a moor laam waaw gaa yu Macky Sall yi laa ne ay moor laam lañ duñu séddoo mukk am lekk déedéet ma ne la journaliste yi juróom-benn kese lañ foo te toog nañ fa dix heures de temps laa la wax waaye bu dee nag mënoo séddoo lekk ak juróom-benn ni kese waa est-ce que di nga mën a séddoo ak ay millions yi millions u sénégalais na tamit mbokk Macky Sall yoo yee di waa APR waaw dañoo amul lu ñu fayee juróom-benn palaat aya bi mbang sa tala kurus